na dina sañ ci ndindi di def di din kuréel boo génneel xamal la réew mi Serigne Fallou jóg leen taxaw ca ko màggal sëñ Fallu bayu alaaji baara ku jóg màggal ko yàlla na nga fekkee déwén jóg leen màggal sëriñ Fallu
Serigne Fallou ni ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laa loo ma sa wax am laa bi isnillah wa ayo alaaji wala ku Fallou jóg taxaw bala ngaa toog nga ñëw jox ko àddee Serigne Fallou ñëw leen jox ko àddee Serigne Fallou bala ngeen a toog
ni ma Cheikh Fallou Cheikh Fallou laa loo ma sa wax am laa bi isnillah ana soppey alaaju fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu sëriñ fallu mbàkke ni ma seex fallu seex fallu laaw doo ma sa wax am naa bismillah aji fallu aji fallu baax loo ma sa wax am naa bismillah alaaji fallu sëñ fallu loo ma sa wax am na bi isnillah alaaji fallu fallu loo ma sa wax am na bi isnillah jërëjëf alaaji fallu loo ma sa wax am na bi isnillah alaaji fallu sëñ fallu doomi daama demoon fil baari laay alaaji fallu yaay sa tub sunu maam jaaratu laay baara addina war naa addina jooy na ñàkk na mbër maam moo di sëriñ baawar Sidi Mokhtar ngeenel la ñëw na moo di sëriñ baara Mbàkke ana sa pay Seex Sidi Mokhtar sama waaja ngeenel la ñëw na moo di sëriñ baara Mbàkke wax leen yàlla fi yàgg te Baay Saal Seex Saaliw Mbàkke baax tibbal te maynu ambala jox lu na gaañu yaay de day bamba Seex Saaliw Mbàkke baax tibbal te dollinu ambala jox lu na gaañu yaay de day bamba borom jannatu borom jannatu borom jannatu Cheikh Sall cantey waral ni ndol leen dudul jeex man maa ngi sant maa ngi ma àndal Serigne Saliou baril baraya awa mo ila so mi re mami
nanu maase ci teewlu àndandoo ñaanal Serigne Sidil Muxtaar Mbàkke xalifatul muridina na ñëpp wax ne yàlla fi yàgg lool te wér barki xasiday maamam yi nañu ko wax faratala بار البرايا ومن إلى سومي الرمام إلى سومي بار ال البرايا وما إلى سمير الإمام بار البرايا أومو إلى سمير الإمام بار البرايا أومو إلى سمير الإمام بار البرايا إلى سمير الإمام قد سأني قبلتي وخطهما عملت كفي وما من جميع سائخة ترقال خمسة أني قبلتي وقم أما حملت كفي وما من جميع خطرك حملت حملت شيخة خلزاني قبل توقف أما أملت كفي وما من جميع خطرك أملت أيخا فقلت قلت لما ردا نفسي خدا خسيا استغفر الله بما لم تكن كسبا لا تبي فقلت لما ردا نفسي خدا خسيت استغفر الله مما لم تكن كسبت إلى سبيل أكبر وما كسبت بمملخ الأمين كسبت مملخ الأمين أكابر وما كسبت مبلغ الأمنية تثبت مبلغ الأمنية. نفسي تقود أجايا دارك الفرساء ولم أقل به شيئا مثل ذي الخرساء أغليت أنفاس نبت الليل بالخلس أستغفر الله من نفسي ومن نفسي حسبي أو خاطر أودو الوان بتهمية وأدور وأدور أو خاطر وأودو الوان بتهمية وأدور وأدور حبيبي تبيت باول yàlla sunu borom dina jëm.
أوا وقلة البرية tabaaraka wa taala dina jëm.
والإرث والبخل في الأوالب تبيت yàlla sunu borom dina jëm.
تباول tabaaraka wa taala dina jëm. borom waxtu juróomi dina jëm.
وقلة البرية sayyiduna Muhammad dina jëm.
ونرسم البغل في الأوالب تبيع sayyiduna Muhammad dina jëm.
تباول borom Makka ak Madina dina jëm. ay Fatuma ak Zeynabu dina jëm.
وصلة الوريا ay Ummu Kalsum dina jëm.
ونرسم البغل في الأوالب تبيع borom lambar nag ma yombe dina jëm.
تباول borom kutumi ak daw mi dina jëm. borom daw mi kurman jawa dina jëm.
وخلة الولايا xalifa Seexal Xadiim Mbàkke dina jëm.
والإرث والبخل في الأموال بالستايا تبي borom lambar nag ma yombe dina jëm.
تباول borom kutumi ak daw mi dina jëm.
أوا
xalifa Seexal Xadiim Mbàkke dina jëm.
أوا
ay Seex Muudu Musa Mbàkke dina jëm.
أوا
xalifa Seexal Xadiim Mbàkke dina jëm.
وخلة الولايا ay Sëriñ Fallu Mbàkke dina jëm.
والإرث والبخل في الأموال بالستايا لكنني xalifa Seexal Xadiim Mbàkke bàyyi Sëriñ Saliw Mbàkke borom jàmm ak yërmande Sëriñ Saliw Mbàkke bàyyi Seex Musa Saliw Mbàkke Seex Musa Mbàkke moom Sëriñ Saliw Mbàkke Sëriñ Saliw Mbàkke borom janatul ma waajra jaf
تبتل xalifa Seex Moodu Musa Mbàkke Sëriñ Seex Mbàkke Gaynde Fatma Sëriñ Mbàkke Soxna Lo borom tiif ak bay la bàyyi Seex Musa Njëñ Mbàkke Sëriñ Mbàkke Soxna Lo jra jaf
لكنني
sëñ Abo Mbakke Seex Musaa Mbakke moom sëñ Fallu Mbakke sëriñ Fallu Mbakke Seex Murtala Juma moom sëñ Fallu Mbakke sëriñ Fallu Mbakke borom ndindeeg sama xayraaj raaj jaaf
lakinnani tubtu magi maam Cerno Ibrahima Fatim Mbakke sëriñu maam Seex Ibrahima Fall Lamp ngona maam Sey Njaay Lamp taala Muudu Mbenda Fall Lamp maami Sëri Fasan Fall Lamp maami Seex Ndigal Fall Lamp maami Seex Jëmb Fall Lamp maami Seex Mboor Fall Lamp maami Amdi Xadi Fall Lamp maami Amdi Ndogay Fall Lamp maam Seex Ibrahima Fall Lamp borom ndandang ndar jërëjëf
للغفار للغفار لا سريا xalifa seexal xaddim mbakke bàyyi sëriñ saliw mbakke borom janatul ma waay yal na yàlla dolli leeram sëriñ saliw mbakke borom xabban lagan njurul ngeejaan janatul ma wa sëriñ saliw mbakke jàmbari seex beejo cundira jaf
للغفار للغفار للغفار ساسريا xalifa seexal xaddim mbakke koo ko defal sëñ mor absaloo borom sangadatu dari ni borom mbakke bu ñu barkeel bi xalifa sëriñ moodu matiloo borom jàmm ak yërmande jira jaf
للغفار للغفار xalifa seexal xaddim mbakke sëriñum sëñ basiru loo borom pakk bu ñu barkel ba borom sangada tuddaari ni borom jàmm ak yërmande jira jaf
للغفار ساسريا bala ma ca ngay sigi maam jaara bu sama ca poroxan ay waay mbooloo mi ku may dimbali jóg taxaw ca kaw màggal seexu naa seexul xaddim mbakke sëñ bamba borom tuubaa ak njaareem jira jaf
للخفار للخفار للخفار للخفار ساسريا xalifa seexal xaddim mbakke koo defal sëñ am di loo borom sangada tuddaari ni borom pakk bu ñu barkel ba xalifa sëñ am di loo borom sangada tuddaari ni borom jàmm ak yërmande jira jaf
لكنني تبت للخفار ساسريا xalifa seexal xaddim mbakke bàyyi sëriñ Basiru mbakke borom jannatul mawa sëriñ Basiru mbakke borom xabbaan ak lagan sëriñ Basiru mbakke jira jaf أتغفر لها من تب ومن تاب ولا xalifa seex Masamba Joob sam seex mut Joob Masamba seex Moodu Badar Joob jira jaf
ومن xalifa sëriñ Baara mbakke jira jaf تعولي sëñ Musayin Baara mbakke jira jaf هلا sëñ Xaadim Awa Ba mbakke jira jaf حالة سقمي seex Sidiyal Muxtaar mbakke jira jaf وخنا xalifa sëñ Baara mbakke jira jaf وقابل ay seex Sidiyal Muxtaar jira jaf جمال مالي xalifa sëriñ Saaliw jira jaf جمال مالي xalifa sëñ Mor Mati dina jàpp جمال مالي xalifa sëñ Basiru Lo dina jàpp جمال مالي xalifa sëriñ Saliou dina jàpp جمال مالي xalifa sëñ Abdou Karim Mbakke dina jàpp جمال مالي sëriñ Saliou Mbakke dina jàpp جمال مالي Cheikh Moussa Mbakke dina jàpp جمال مالي جمال مالي جمال مالي جمال مالي جمال مالي xalifa Cheikh Al Khadim Mbakke koo defal sëñ Siré Lo borom sanna borom Mbakke bu ñu barkeel ba borom sanna de tu daare ni dina jàpp
جمال مالي جمال مالي جمال مالي xalifa Cheikh Al Khadim Mbakke sëriñu maam Cheikh Issa jenn borom jenn ak la gan sëñ Baara jenn Cheikh Latif jenn sëñ Youssou jenn borom jenn ak xayma yaar dina jàpp
وخنا ay yokk jumaay Seex Bamba ji yeesal la dari kaamil Seex Laan Mbakke jira jàpp هابلو ay sëñ Sidi Mbakke jira jàpp هابلو ay sëñ Seexuna Mbakke jira jàpp وخنا xalifa Seex Abdu Xaadir jira jàpp هابلو Seex Moodu Abdu Xaadir jira jàpp وخنا sëñ Basiru Abdu Xaadir jira jàpp وهابلو Seex Musaa Abdu Xaadir jira جمال مالي sëñ Saaliw jira jàpp جمال مالي Seex Musaa Saaliw جمال مالي sëñ Saaliw jira jàpp جمال مالي sëñ Basiru jira jàpp جمال مالي borom mbég mi jira jàpp جمال مالي جمال مالي جمال مالي سارة ku bëgg sëriñ Saaliw Mbakke yëkkati sa ñaari loxo ca ko ñu màggal koo def da nga raw sa maska borom jannatul ma waa jira jàpp
جمال مالي جمال مالي سارة سعيد xalifa maam Cerno Ibrahima Faty borom bayte ak maqama Ousmane ak ay
wa hindi xalifa sëriñ fallu mbakke bàyyi si abdou karim mbakke borom makaarima la la sëriñ fallu mbakke bàyyi si ñëbu mbakke jira jaf
kaza xalifa sëriñ badiru mbakke seex muntaka mbakke moom sëriñ badiru mbakke jira jaf wa hindi xalifa seex masamba joob sam sëriñ mbakke joob borom kalsan jira jaf
kaza xalifa seex ibrahima joob masar borom jàmm ak yërmande sëriñ mbakke joob borom kalsan jira jaf wa hindi xalifa sëriñ omar joob jira jaf kaza borom jàmm ak yërmande jira jaf wal xalifa jasaya sëriñ mbakke joob kalsan jira أتغفر jaf لها من خولي أنا ما أتغفر الله من خولي ولي xalifa Cheikh Mourtala Mbacke sëñ Fallu moom sëñ Mourtala Mbacke sëñ Khalil moom sëñ Mourtala Mbacke sëñ Isaaka moom sëñ Mourtala Mbacke sëñ Fallu Mourtala Baye Fall Dira Jaf
ويندي Balak Marama Isaak Sadio Maam Jaara bu sama ca Porokan ñaari loxo ca ka ñu màggal Maam Jaara ma ca Saalum Maam Jaara bu la borom Porokan Dira Jaf ومن سني xalifa Cheikh Moussa Mbacke Dira Jaf ومن قسمي xalifa sëñ Badru Mbacke Dira Jaf توبى إلى الله xalifa sëñ Muudu Matiloo Dira Jaf إلى الله borom jàmm ak yërmande Dira Jaf توبى Cheikh Jéeri Waadaan Dira Jaf إلى الله Jaamu tasrif jërëjëf.
إلى الله Xalifa si jëri jërëjëf.
Ilalayi.
Sëñ Mamadou tasrif Ilalayi.
jërëjëf. Sëñ Mbacke Diop jërëjëf.
وتعدم لا تفتن Cheikh Ibrahima Diop jërëjëf.
ادخلوا بكم وخم مكافاتا فقلنا Xalifa Cheikh Madou Dumbe borom Xabban ak Dénday jërëjëf.
فليتوب Cheikh Modou Xabban Mbacke jërëjëf.
يرجو Borom Xabbu ga ca Dénday jërëjëf.
يرجو Cheikh Modou Xabban Mbacke jërëjëf.
يرجو Xalifa Serigne Saliou jërëjëf.
يرجو Alaaji Baara Mbacke jërëjëf.
يرجو يرجو يرجو يرجو يرجو يرجو سادفة Xalifa Serigne Fallou Mbacke bàyyi Sëñ Abo Mbacke bàyyi Sëñ Murtala Juma Mbacke Sëñ Takko moom Sëñ Fallou Mbacke Cheikh Oumy Mbacke moom Sëñ Fallou Mbacke Cheikh Abdou Karim Mbacke moom Sëñ Fallou Mbacke Sëñ Tahir Mbacke moom Sëñ Fallou Mbacke Sëriñ Fallou Mbacke borom dindeeg saam ku ko sopp yëkkati sa ñaari loxo ca ko ñu màggal Sëñ Fallou borom dindeeg saam dira jaf أستغفر الله أنا فالمضاعفات مما
Xalifa Serigne Badru Mbacke borom mbég meeg tar bi Sëñ Muntaqa Mbacke Cheikh Abdou Hakim Mbacke maami Sëñ Moussa Mbacke maami Sëñ Bas Borokaan borom Tibang Ndorang dira jaf سكرت xalifa sëñ Cirelo borom sànn borom bakk bu ñu barkeel ba dira jaf من الأجناس xalifa sëñ Mbacke Diop borom kalsaan Cheikh Ibrahima Diop dira jaf والقسم xalifa Cheikh Massamba Diop Sam dira jaf الحمد Cheikh mu Diop Massamba dira jaf لله xalifa sëñ Cirelo dira jaf لما Cheikh Sidi Al Mukhtar Mbacke dira jaf الغداء sëriñ Bara Mbacke dira jaf وترى borom kuy mbind dira jaf من بعد ما كنت ذا فخر وسادارا عبدا xalifa Cheikh Al Khadim Mbacke Baye Cheikh Abdou Khadir Mbacke Cheikh Moudou Mbacke moom Cheikh Abdou Khadir Mbacke sëriñ Badru Mbacke moom Cheikh Abdou Khadir Mbacke borom Touba Mbouré dira jaf يكافي xalifa sëriñ Saliou Mbacke yal na yàlla dolli leeram dira jaf بسيطا jàmbaari Cheikh Béthio Thioune borom jënatul ma waay dira jaf ملو في الوسرى xalifa sëñ Mbacke Madina borom Madina ak Bumbaali dira jaf ثم صلاة على المختار من المدارة عبدا يكافي نصيبا من ثم صلاة على المختار من بدر خير البرية من باكر لكن ممتازنا
xasaat gi day far bàkkaar jóg leen taxaw ca koy yël bu tàggoog bàkkaar xasaat gi day far bàkkaar jóg leen taxaw ca koy yël bu tàggoog bàkkaar jar na ko baakin wa mu taasin
خير الباريات من sant ko war na.
باكر sant ko war na.
قاسما يأتي من باكر باكر ومهار خير الباريات من باكر ومهار يأتي من باكر خير الباريات من باكر ومهار اللهم مغفرتك أعظم من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي déglu dégloo dégloo dégloo dégloo allahuma مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى إن جميع عملي اللهم مغفرتك أعظم من ذنوبي ورحمتك أرجى إني من حملي اللهم أنت ربي لا إله لا إله إلا أنت bal leen nu déglu waay ñii ci gannaaw ñii côté bii dimbali leen nu ngir jëmmi sëñ Tuubaa bal leen nu rek déglu bal leen nu soxna yi côté bale bal leen nu rek ngir jëmmi xasaay yi di ngeen teewlu اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك ووعدك ما سترت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بسنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب إلا أنت سمعالا سي الملك والملك سبحان الله والجبروت سبحان سي الملك والملكوت سبحان العزة والجبر سبحان علي الذي لا يموت سبحان قدوس رب الملائكة والروح سبحان الله وبأمده عدد خلقي ورداء نفسي وسنة أرسي ومداد كلماتي سبحان الله وبأمده عدد خلقي ورداء ورداء نفسي سنة أرشي ومداد كلماتي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما لك يا خريب يا مملك عليك يا ملك عليك يا ملك يا سلام يا سكور على ما تعلمت بلسان العربي من ابتداء مسس وبدو بالانتهاء أبدا ميم وسين أنسين ملكني نورا لسان العربي باخنا ياتي لو في خربي يسر للخدير ما تسرى على سواي وأموري يسرى مثلي الجميل ما لا ينتهى من المنى من المنى من المنى من المنى من المنى وقبل دري منتعي واجاني الباخي بما يسر بلا نهاية ولا يقر زخاني المغني فلست أسمعه ولسوى أمري ينو السماء يقود للمخيط في تعامي وفي سراب أفضل الإنام نفى هداية لسوى يسر مدى وإن جندي جادي ومدى عبادتي إن الجار المنسار كفتيات العدا والسيئات نفى الكتابة كتائب لدى من سلس ولي أتاب الخلدا سكرني المستعصي والأفواج عند هدر السفن والأمواج يقودني لجنة لجنة الإسلام فإن اسم الله لا أولام يقودني لجنة الإسلام فإن اسم الله لا أولام نتالي نور لسان العربي الأبتع العازمي العابي إلى نهاية اللهم شيء واجي يا أبدي صلي بأقوتك الكريم علي على سيدنا ومولانا محمد